d'abord euh, mbok yi fi dajé ci suñu conseil régional de consommation fi ci Thiès mu nek réunion bu am solo mais réunion aussi bu déboucher ci ay résultats yu palpable ben bi d'abord euh, maa ngi rafetlu acteur chaîne bi yépp muy organisation yi lu melni ni inakwa muy opérateur yi muy grossiste yi demi grossiste yi ak détaillant yi dëgg la yéen a ngi doon liggéey ci bërëb service de commerce mais bi arrêté bi wàccee ba léegi maa suivre heure après heure ni ngeen di liggéeyee foofu ak résultat yi faut tukkee ma am vraiment mbégte tiire leen le chapeau ci seen taxawaay bi nga xamné taxaway bu mucc ayib la mais taxaway aussi bo xamné ne dafa woné sen sursaut patriotique ci walu baisse des prix yi nga xamné pouvoir bi décider nako benen bi aussi li may rafetlu moy ñepp ñu jël kàddu sant haute autorité yi ci effort bi nga xamné président de la république ak premier ministre def nañ ko manam wut montant bu toll ni 53 milliards renoncé ko ci ay taxes yi mu waroon afin que mu faciliter baisse des prix Et te bu sobe yalla dina yegal lolou monsieur le ministre du commerce mom mu jottali ko kilifa yi. ensuite deug deug man li nekul suma première réunion bu may présider un conseil régional de la consommation def naa ci yeneen région yi ma nekk mais yéen taxawaay bi ngeen am yombalal ñu ko yombalal ko service du commerce yombalal ko consommateur yi je ne l'ai pas vu très souvent su fekkee dëgg rek la dafa mel ni un moment fàtte ngeen seen bopp ci wàllu bénéfice yi ngeen doon mun am mais pour mun a accompagner politique état bi mais également jàppale consommateur yi nga xam yeen ak mom yéen a bokk lépp ngi len ci sante ci turu autorité yi gëna kawé kawe donc liggéey bi mujj na am résultat yu am solo résultat yu moy denrée yi nga xam gouvernement bi ciblé nako pour wagniko Thiès vraiment apporter nañ ci contribution déjà bo jëlé le riz brisé ordinaire sama mbok séeréer diko wé ko actuellement ñu ngi koy japp 415 francs le kilo à compter d'aujourd'hui comme réunion bi les prix sont validés commerçant Bouné ne na pas né que kilo ceeb mi ngi ko wara francs Et buñ ko par rapport prix ñu amone fofu baisse bi 40 francs le je crois juróom-ñetti drum lañ koy wax ci wolof 40 francs ñu jall ci diwlin bi diwlin bi à compter d'aujourd'hui commerçant bu ne boutiquier bu ne na japp ne que 1100 francs 1010 francs la ko wara jaayé kuy dem it di jëndi na xamné lolu moy prix bi munu ko wessu si on a francs le litre d'huile à caisse. Et si on a par rapport au prix fin donc là aussi, baisse presque 105 francs. Euh, je me limite en français, les gens comprennent. Donc, pour huile, une baisse de 105 francs. En poursuivant pour sucre, consommateur boo xam ne mi ngi yeewoo ci région de Thiès su duggee ci boutique pour jënd kilo suukar na jàpp ne kilo bi 600 francs lay jar buñ ko xoolee par rapport li mu doon jar bees bi wàññeeku na de 50 francs maanaam fukki dërëm pour la farine suñu mbokk boulanger yi sac bi heure bi jàpp nañ ko 15400 francs lay jar Thiès à compter de cette réunion du conseil régional de consommation il faut aussi nous avons les prix bi mu avant baisse nous avons de 4 de francs au profit en tout cas des consommateurs Nous, avons ci euh, plusieurs formats mais bi Thiessois yi ak sénégalais yi ont tam, le format de 190 grammes Ce à compter d'aujourd'hui 150 francs sur toute la région de Thiès Et mu une baisse de 25 francs parce que prix yu de 175 la enfin le ciment nga xam aussi dafa am solo am importance qui construction développement réew boobu it effort établi, bi tonne 72 000 francs à compter de suba képp ko xamné de dafa le ciment pour tabac wala pour lenen na que amna une baisse de 2000 francs sur l'ancien prix de la tonne donc euh, lolo moo nekkoon euh, ni euh, ci teunk résultat yi génn ci conseil régional de la consommation boutiès dit terminer rek que fixer ay prix mais pour nous, état veiller à ce que mesures nous ñu jël appliquer de manière effective l'eau aussi suñu nous donc premier élément communiquer nañu ba joxe prix nous, avons ndigal aussi service du commerce par tous les moyens nous fexe nous sensibiliser donc population et ak consommateurs donc euh, ci campagne de sensibilisation bobu Mangi, ñaan association de consommateurs yi ñu impliqué wu suñu mbokk également imam yi ak bép relais bo xamné lu melni euh, mouvement de la société civile nañu jappalé état bi di sensibiliser pour nit ñi xam prix bo xamé prix rek dootuñu la nax tu sais que prix kilo sucre, 600 francs la booy dem yóbbul sa 600 buñ la waxé que lu ëpp loolu lañ koy jaayee ngir yàlla jàppaleel état bi jàppaleel sa bopp jàppaleel nit ñi soo amee fit ci kanamam nga woote service de commerce ñu ñëw seytu loolu su fekkee daf la gêner génnal à quelques mètres nga woote nga ne en tout cas daje naa ak commerçant boo xam ne respecté wul prix yi en ce moment état dina jël responsabilité am pour mon en tout cas obliger cette personne à respecter les prix parce que li ñu def def nañ ko ba L'État état renoncé à 53 milliards de recettes L'OLU, moy obligation Ce qu'on a fait, ñi ci des ci chaîne bi vraiment nañ pour que population yi seen coono c'est ça la mesure visée par les autorités réduire les difficultés liées au coût de la vie très élevé donc euh, di sant ñep, di ñaan yalla ñu fi dajawaat yenen CRC encore toujours fekk dañuy dem ci une logique de baisse des prix ba nga xamné vraiment le coût de la vie sera supportable di len sant yéen di len rendez-vous la prochaine fois jërëjëf